وإنني باسم مولانا العلي الأزلي أبدأ نظمي هذا تيكونا ومتل boo demee ci sëriñ sa bëggante wuñ ngeen bal ma xaq yéen bëggul leen bokk leen ci boo demee ci sëriñ sa ci ñoom lay njëkkee bëggante wuñu maslaa rekk a fi ne du dëgg man sama baat ni potote ku ma woo ma expliquer la ko de A à Z maslaa nii ci kaw waaye bëggantewuñ ci biir ku toog ci tant tagg sa morom boo wéetee jëw ko yàlla nañ ci yàlla musal du tax ñu mucc jëfee ko mooy tax ñu mucc man ku wax ma tontu la parce que yàllaa ma tax di wax yàlla nañ ci yàlla musal du tax ñu mucc yonent bi ñaanoon na mucc teñ damm bëñam ca Uhud te moo gën ñëpp xayral wara afdalul xalqi ñu damm bëñam xam nga lu ko ko yóbbee ay nitam a déggutoon ndigal c'est tout ay nitam ñoo dégguloon ndigal parce que yéeg na ci montagne bi mooy chef de guerre xam na xeex bi fu muy mujj mu tracé diw taxawal fii diw taxawal fii diw taxawal fii yéen wàcc leen lu ngeen mën a dégg bu mu tax ngeen yéeg bu mu tax ngeen dem acca na fett yi jëm plan de guerre baa ngi noonu ñi fett yi di dem ñuy jam yéefar yi ñuy jam yéefar yi di jam yéefar yi ba yaakaar ne yéefar yi jeex nañ ndekete dañ làqatu am ci ñoo xam ne wàcc nañ bàyyi fa leen yonent bi santoon ñu wàcc ñañ jam ñuy lu ñetti seen bagaas yi di seet luñ ca jël koom koom a taxoon yàlla wàccee laay ne minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul axira am na ci yéen ñoo xam ne àddinaa tax ñuy xeex yàlla ne baax na xaaral ma mu wëlbati ko ci si bañ wàccee rek bul bi tourné wa tilkal ayyaamu nudaawiluha bayna naas bul tourné ñu xawle na yóbbu laaxira rey ci ñoom 70 ci jullit ñi 70 Hamza ca la bokk ca Uhud damm ba ñu yónnant bi boo demee ca Turquie bañ baa nga fa musée bu Turquie ba ñu yónnanti boobu ñu dammoon mu nga fa ku ko bëgg demal nga visiter boo fay dugg pour visiter li nga sol sax danga koy summi blouse lañ lay solal bu weex tàll am ñu la gunge nga dugg ñu wan la ne la bëñ baa ngi nii a ngi nii mbàjjam a ngi nii peñeem mu ngi nii yet wi mu daan yor a ngi nii jaaseem a ngi nii sallallahu alayhi wa la tax mu yegg turki xaju fi waaye biñ génnee shérif yi arabi saoudite bi leen Angleterre colonisé ñu génnee leen euh, euh, kii niñ koy waxee kii le roi roi bi nu ti tuddati te gaañu dimbale ma Mika déedéet roi bale ca Damas te génn àddina jamono yële roi Hissen bu Jordanie ay maamam lañ génne woon Arabie Saoudite shérif xaqan la moo tax bu mosaan dellu Arabie Saoudite dañ koy ubbil raw di yoon du yonent bi mu dugg ci biir parce yoon sotti yonent bi la roi Hissen bu Jordanie ay maamam ñoo daw dem turki ñoo yóbbaale matériel lu yonent bi ba fii may wax ak yow boo demee màkkatal mukarram wax saxula medinatul a konteel li ma lay jox konteel pavillon yonent bi bu Seydina Aboubacar moo ci topp bu Seydina Omar moo ci topp am na pavillon bu buñ wërale gisuloo ko yéen ñi dem màkka dee leen ko xool am na beneen pavillon bu fa ne dara newu fa xam nga lu fa ne bagage u Seydatuna Fatima yi moo fa nekk ak lenn ci bagage yu bi moom lañ fa deñ te yonent bi moo waxoon ne na ngeen ko fi bàyyi sama mbokk ma isa ibnu maryama bu ñëwee faatuwaat fii lañ koy denc kooku du waxantu moo ne moo ne isa ibnu maryam dana ñëwaat mujj jamono ah may wax ak yow ko bëgg jàngil mbir mi ci xam-xam la nekk ak jàng déedéet demal ca Medinatul waral li ma la wax nii nga calculer ko boo duggee ci biir jàkka ji fi muy wax rawdatun min riyadil janna poto yu verte ya ngay gis moom la luy poto yu verte rek loolu la yay du poto yu verte bokk ca pour ma dimbale leen ku dem màkkatal mukarram dafa am poto yu vert du poto yu vert carrément dafa am ay dama leen di dimbale ay ay karo ñu xoob ci vert ci diggante bi doo koy gis karo la ñu xoob ci vert mu am ay ronron yu yu xaw a ñuul tuuti poto yooyu yëpp mooy la fa yonent bi bàyyi woon ya ko wóor mooy la fa Seydina Aboubacar yokkoon ya wóor yooyu mooy ya Seydina Omar yokkoon la ca des nag Faat ibnu Abdul Aziz moo ko fa yokk boo wëññee nag fi yonent bi tëdd salaay sallam seydina aboubacar seydina omar am na beneen pavillon boo xam ne dara newu ci bagage yu seydatuna fatima ya moo ca nekk ak lenn ci bagage yu yonent bi sax bariwul satala seydina ali bi mu nga ca kaaba ga ci biir kaaba gi la nekk ci biir kaaba gi am na matériel yu fa nekk yetu seydina ibrahim mu nga fa moo tax ñu koy ubbil ñeen ñenn ñi pour ñu dugg ci biir di xool buñ la laajoon tey fooy taxaw ci àddina bi julli te doo am julli mooy ci biir kaaba bi buñ la ko ubbilee nga dugg ci biir boo fa jullee amoo julli ah fooy jublu <laughs> cax la ceex boobu cax la ci xam-xam buñ la laajoon fooy taxaw ci àddina bi julli te yàlla du la nangul mooy ci biir kaaba gi kenn du fa julli boo fa jullee duñ ko nangu ndax doo am xibla fa wallu wujuhakum shatral masjidil xaraam buñ ne masjidil xaraam biir ba taxut biti bee tax te boo duggee sa biir néeg julli ñu nangu ko waaye sa néeg du kaaba gi moo tax kenn du jublu ci sa néeg jeex na pour ki may déglu naan ku dugg sa biir néeg julli ñu nangul la boo duggee sa biir néegi direction kaaba gi ngay dàkk fa aynama fa aynama takunu fa aynama kuntum fa wallu wujuhakum chatra al masjid al haram waaw kañ loolu mooy wax bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal bëñëm bëñëm Serigne Cheikh Tidiane si nee na paxta lañ ko dóor tépp yonent bi daanu ci suuf ngeen ne lu bon amu fi moo tax Seydul xaaju Malick nee na El Hadj Abdou Aziz nee buñ mosaan wax àddina neexul mu ne eh, doom kañ la mos a neex biñ daan rey yonent yi di rey saxaaba yi ba dam mu ba ñu yonent bi boobu la àddina neexoon doom àddina mosul neex te du neex ba faw li ma taqtuluuna anbiyaa allahi bi gayri alxaq ñaata yonent la ñu rey ci lu dul dëgg yonent bi ngeen baal ma te muñ muñ laay wax muñ moo may yonent bi lu mu am te ñun kenn fasatul yéene muñ man mi koy wax nag yéen xam ngeen ne man muñkat la man lu may wax dama ciy joxe sama bopp exemple parce que dara gënul dara gënul rëy ngay wax ak nit ñi ñu xam ne da ngay fen ku ne war na ko moytu ku ne war na ko moytu mooy jo exemple yi ngay joxe nit ñi buñ jiixee xam ne yow mii di ko wax nekkul ci yow loolu waaraatekat bu ne war na ko moytu ataamuruuna naasa bil birri wa tansawna anfusakum afala tazakkaruun moo tax man rus naa wax nit ñi lu ma xamut gis nga muñ lu am solo la nañu muñ nañu muñ ku muñ nag yàlla fay la wallahu maa saabiriin muñ nag ak ñàkk pexe du benn fokk ñu xàmmee ko tooñ naa soxna Astou moo woote moo tax wala boog ma bàyyi ko fa tooñ naa sàmba alaaji sàmba tooñ naa ko tooñ ya rëy na dem na police sottiwul mu dem gendarmerie sottiwul xaritu avocat yi ma am ak juge yëpp xool na leen sottiwul mu dal di ma woo téléphone shérif banaa la ak yàlla dafa tële ba wuma ak yàlla dama koy tooñ mu mën a fayu am kàttanal fayu xam fi ñuy fayoo dara doxul digganteem ak fayu mu wol ma mu woo ma ne ma baal naa la looloy muñ de maxtaar ñemewuma laa dog de waaye mu gàtt rek wax ko ci kaw moo may yonent bi li mu am nañu muñ nañu muñ nañu muñ boo muñul sax li ngay defal yàlla du sotti li ngay defal sa kilifa sax du sotti ndax léeg-léeg nga defal sa kilifa ba noppi sax te moo la yilif xolam du ca sedd mu wax la moo xam ne boo muñul la nga liggéeyoon yépp yàqu kon nag nañu muñ sëriñ Cheikh Tidiane si nee na xoolal ku toll ni yonent bi ak fi yàlla jaar ak moom ci teraanga muñ rek moo ko war dóor paxta tël bañ ba dali fële yonent bi yegg ci suuf tëdd heureusement benn saxaaba moo ñëw rek plongé ci kawam tëdd ci kaw yonent bi jam nañ ko juróom-ñaari fett moom saxaaba boobu nga xam ne bu dul woon moom ci yonent bi lay yegg ndax dafa am ko yuuxu ne rey nañ yonent bi te fekk ci naa fekk yi la rek day fen jullit ñépp jaxasoo Seydina am am ci saxaaba yi koo xam ne mu nga naan reyuñu ko dañuy fen dellu leen seen place rey ñu ko dañuy fen waaye kenn dëglootul ñépp jaxaso xoolal yàlla fi muy jaar nit bi yonent bi jógee xam nga lu mu njëkk a wax ñuy def seenub yonent nii ndax danañu texe yàlla na jibril kaay demal ne ko moom bu bu bu dérapé rek ñépp dérapé laysa laka min al amri shay'un aw yatuuba alayhim aw yuadibuhum fa innahum zaalimuuna mu ne ko ñu dem àjjana ak daay ñu dem safara sa yoon newu ci ndax yóbbuwoo àjjana yóbbuwoo safara waxal ne daal tooñ nañ la ma dimbale la waaye kuy dem àjjana kuy dem safara sa yoon nekku ci te yonent bi la ko yàlla wax te ñi ko def noonu la doon wax luñ ciy jànge nañ teey ci mbir yàlla yi yóbbuwaate safara teel na yóbbu yóbbuwaate àjjana teel na nañ bàyyi rek ba ca kanamu yàlla ëllëg ku dem àjjana ñu xam ne dem na ku dem safara ñu xam ne dem na mara di itaali waaye toog fii ci àddina di dugal ak a génnee te yow li ngay dugal ak a génnee dara wóoru la ci jël ñëpp sob safara jël ñi la neex dugal àjjana bete yàlla moom noonu la mel nañ waxante dëgg mbir yi ci loxo yàlla la nekk yàlla bu demee benn yonent bi mbir yi newul ci sa loxo ci sama loxo la nekk safaraak àjjana maa ko moom waxal ne tooñ nañ la rek ma dimbale la bëñam boobu boo demee Turquie mu nga fa te moom moo gën ci yonent moo gën ci mbindeef bi mu jógee ci circonstance yooyu ma doon wax daaw ci xiini xiini yuñ ko def mu doon uti ndimbal ak wollu tempête boo xam ne ci ci musiba fekk ko ca te ay nejaayam ñoo ko ko teg ci la ko yàlla woo rañaan gis nga moo tax yàlla bu la tegee nattu yenn yi rek xamal ne yéeg la ci yow ak ku mën a doon ci ñun soo ko muñee te yàlla tax rek yàlla yéegal la yonent bi bi mu yeggee foofu ci circonstance Seydatuna Aïcha nee na dama ko laaj loo am ci àddina lu la gën a metti mu ne ko keroog bi ma demee Taïf ci sama néegu ndey di uti ndimbal ñu boole ma xale ya ak xaj ya ak xale yu réew ya xaj yi di ma baw xale yi di ma jam ñu jam ko be be be bel eel yeel bi lellee ko foofu di nàcc jibril ne cëpp ne ko sa borom nee na lii ñu ne def loo ci bëgg waxal rekk mu boole ñaari montagne yi seq Makka Taayif raaf ci kart bi dootul am waxuma la nit ña fa nekk xam nga lu yonent bi tont ne Jibril demal ne sama borom moom su fekkee merul rekk man lii ñu ma def wàññu ma dara su fekkee moom merul lii ñu ma def man wàññiwu ma dara ndax ñii ma ko def dañ maa xamul suñ ma xamoon duñ ma ko def te amaat na ëllëg ñi jógee ci seeni ndigg ak seen biir gëm ma loola amul te gis nga yàlla ay stratégie am ko defoon tey ñooy buur buuri makk loo ci mën waaw mu mu toog rek ku ko bëgg sarax mu sarax ko moo gën sëñ bi may ko mu toog foofu rek moo gën ñëpp a koy gis nag ku am loo ko yéene rek jox ko ko moo gën a civilisé jërëjëf Mika gis nga lii rek la yàlla bëgg am na lu ko yàlla nattoo am ñu lu yàlla nattoo waaw ñaan waaw kon nag waaw xaaj ma si la kan nee na bu la kenn nax ñaanalal xaaji Mika député moo la jox 5000 boobu te bu la kenn nax nag boo génnee ku mel ni Sayid Gueye mën na leen la kaay euh, euh, ma kii fekk dalay wecc billet bi dégg nga euh, sama sang yi nañ ma baal waaye daal li ma bëgg a wax mooy fa la yónnent bi jëlee isra wal mi'raj ba yàlla jox ko na nganaleeg julli xam nga lu ko yàlla wax àddina yépp buñ maase woon pour tuutal la wala jéem laa tuutal wala jéem laa toroxal man yàlla ak ñi maam yépp ñu ngi taxaw pour teral la loolu doyut te waa àddina ñoo gën a tuuti mu ne ko waa àddina yépp buñ dajee woon pour jéem laa tuutal man yàlla ak ñi ma am ñuy ay malaayika ñu ngi taxaw ñun pour yàkkamti laa teral wa in yuridu an yaxda'uuka fa inna xasbaka allah huwa alladi ayyadaka bi nasrihi wa bil muminina wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fi l ardi jamian ma allafta bayna qulubihim walakin allaha allafa baynahum innahu huwa azizun hakim ah haj yéeme na te muñ a ko ko may nañu muñ boroom kër gi ci këram wallahi bu muñul sax këram du baax ndax njaboot gi daañu def loo xam ne boo leen génnee weer sa bopp boo leen xasee ñu tontu na looy def lu dul muñ te seet noo koy saafara imam bi ci jàkka ji kadalik jàkka ji gën a lëj léeg nga xool bilaal mu këppoo kees gi wala mu wàññi sarax si moo am bu bilaal wàññee sarax dangay jël micro bi ne bilaal moo wàññi sarax si toj nga jàkk ji wala imaam ñi jox ko mille francs mu war a sédd maamu mi roof ci poosam looloo xew ci jàkk yi looloo xew bu dee kër sëriñ si seexu naa mi am na bëkk néeg boo xam ne la muy def ci biti bu ko seexu naa yéegoon génne ko kër gi balaa ko kenn di gis mu ngay koront loo xam ne ne la maa la mën a won sëriñ bi te yooyu yëpp sëriñ si dañ koy yëpp góor mu ne góor ga nee na warkat bu la sutee njoolu la bu boo ko sutee mu suufu la akay wax dëgg warkat mu ne bu la njoolu la waaye boo ko sutee mu suufu la fooy mucce doo mucc sëñ Fàllu Mbàkke waaja daal yar forot bu dul jeex ñu dàq ko ba dab ko ne ko foo ko jëmee mu ne sëñ Fallou ma yónni ndax màggal bi loo ci man ñu topp kook oto bi ba ci sëñ Fallou ñu ne ko kii nee na yaa ko yónni mu ne waa ji bàyyi leen ko mu dem bàyyi bàyyi dem leen ba léegi bàyyi leen ko dem leen dem leen pour suturaal gendarme yi dem mu ne ko maa la yónni mu ne ko déen mbàkke jaaxle rek mu ne ko waaye bul jaaxleeti ba fen de te bu ci dëkk nag <laughs> te mooy dëgg alaaji Abdou Aziz nettali naa ko ba tey génn na ci kër Seydul Xaaji Malik di dem réception li may wax nii kañ ki ko fekkee mu ngi fii muy niñ koy waxee ti dem na ba laaj ko euh, jëbel kuwaate bi muy def teesam ci alaaji waa jaa ngi fii Tiwaawan alaaji Abdul Aziz di génn di dem réception am ku ko jox benn enveloppe ci kilifa yi mujj ñëw góor gi jël enveloppe bi def ci poosam di génn am kenn ci bëkk néeg yi ku ci raax moom yëf yëpp mu ngi lux luxi ci poos bi rek góor gi li muy nekk nekk ak mbooloo mu yàngi poose bi couvriraale ko déy ko ne ko li ngay seet nekkul ci poos bi mu ngi ci bii gaawal wallahi wa sharafil quran jëbel ku yaa ten ko bind ci teesam te moo dem ba ci waa ji laaj ko am na wala amut mu ne ko wallahi am na te man mii la te waa jaa ngi tiwaawan mu ngi dund ba góor gi ne ko li ngay seet nekkul ci poos bii mu ngi ci bii gaawal balaa gaa yi di gaaw yaa ngi poos bi waa ji jël enveloppe bi teg ba mu am ñetti fan alaa jab woolu ko mu ñëw mu ne ko diw li nga def lu la ci xiir mu ne ko yàkkamti rek ndax kër ga dara fa newuloon góor gi ne ko xam nga lu tax ma ne la newul ci poos bii ci biir ne mu ne mu ne ko xam nga kon maa ngi lay jàngal sàcc boo xamut mu ne ko mu ne jàngalu ma la sàcc de li tax ma ne la nekkul ci bii mu ngi ci bii mu ne ko ñaar tax biñ may jox enveloppe bi sama xel dafa ne yarre ci yow ma ne naa la ko dencal ba jógee réception ba woo la jox la ko yéene bi ma amoon ci yow nga yàkkamti ba di ko jël moo tax ma ne la jëlal mu ngi fii seetal loolu gàcc la kon nag rasulullahi soxna astu buñ bëggee roy rasulullahi nañ ko royee ci muñ mooy bunt bi gën a gaaw te jamono bii ku muñul soxnaa si moom muñ na ba dee ndax li ko Astu Juuf di def yëpp mu ne pat muñ na ba dee moom bu muñu loon sax Astu Juuf kenn dootu ko gis-gis soxnaa si moom muñ na ba dee moom ba dee maa ngi lay tagg boobu ba léegi te joxoo ma dara yàlla ci mbaaxam yàlla ci mbaaxam li yàlla di def daal nañ ko nañ ko nañ ko àndale ak muñ istainu bis sabri wa salaati wa innaha la kabiratun illa alal xaashiin yàlla may may ma rek yow yaay ubbil sëriñ bi yonent bi nee na yàlla nee na yonent bi waaw kay aha kii day moom dinaa jël bosam te laal ci doom waaw kay moom de dinaa moom delloo yëpp ba mu des bu astu juuf ndax doomu nijaay ju amul benn njëriñ ju la jëriñ tus waaye tey tànn na eh, li ma koy tooñ yépp nag danaa koy faral di wax am na benn qualité bu baax benn rek la ci am nag benn gisuma ci ñaar baayam da ko fonk bëgg ko yéeg teraanga bu mu koy defal ba tuddee ko doom mos ngeen dégg loolu baayam bi ko jur tuddee na ko doom moom mi ku ma a dégg loolu man de mosaguma ko dégg mës ngeen ko dégg jur sa doom tuddee ko doom ah wax dëgg yàlla nag maa woo papaam ba mu ñëw sa ba mu bàyyi ma ñëw ba ca kër ga ma laa ko yow astu ni mu bonee lu tax nga tuddee ko doom ndeysaan muy jooy wallahi muy jooy ne ma rek dal di jooy astu dafa baax dafa baax dafa ma bëgg loolu way jur wu ne doom ju ne war nga ko sàkku nag ci sa way jur loolu tax ma di ko nettali na doom ju ne war nga ko sàkku ci sa waajur te nit a koy ñaq nag nit a koy ñàq kon rasulullahi daal mu ngi noonu soxnaastu buñ bëggee muñ buñ bëggee roy yonent bi nañ ko royee ci muñ mooy wàccuwaay wi gën a gaaw ca yàlla nag boobu la yàlla gën a reconnaître ci jaamam muñ muñ muñ wallahu maa sabirin julli gi yonent bi indi sax li julli ji foor foor foor yàlla dafa ne istainu bi sabri wa salaati wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin na ngeen dimbane ko muñ ndax ngeen mën a julli ndax boo muñul parce que eh, julli yomb rawati sedd bi ñu toll ah mbëkk sa mbàjj génn dugg ci ndox mi bu cangaay waree wala jàpp war bu dee góor nga mbëkk néeg bi génn utali jàkka ja yombul de bu dee jigéen mbàjj nu mu nuggee nga bàyyi sa mbàjj ah kay ndokk tey de am na njëriñ tey de moom bu ma yeggee ñaan lay fanaanoo ba bër set ndax xam naa ne yàlla dina ko nangu kuy waaraate léegi allahu nuuru samawati wal ard kon réew mi yàqu na mii kaa génnee leen beneen décret sëñ naa jërëjëf man li ma ci doon wax daal mooy loolu yonent bi li ma am ci yàlla yépp muñ moo ko ko may sëñ Touba li ma am ci àddina am ko ci yàlla am ko ci yonent bi muñ moo ko ko may yéen ñëpp bër bu set ngeen dégg ko bi mu jógee ca géej ga ñëw lam njëkk a bind ci xasida mooy ñi ma def nii baal naa leen walla de jeex na ah ñépp foog te wallahi bu noon allahumma duñ jar dara waaye dafa yëg ne allahumma am xajul ci ñoom mu rey yonent bi baal leen te mënoon a fayu ndax ñoo ko tooñ waaye moo xam ne ñu tooñ la nga fay du ndam ñu tooñ la nga baale mooy ndam suñ mag ñépp am nañ ko kon nag nañ ci góor góor lu terewee ko yonent bi na jëkkër jéggal jabaram na way jur jéggal doomam na directeur jéggal ñam wu yilif ba ci mbindaan mi ci kër gi ki ko cheef na ko yërëm te jéggal ko bu kaas tojee sax kaas nga soow ko soowa soowa soow ba mel ni nit la rey ah xaaji la nee na baat yu jege la na jëkkër jéggal jabar jabar déggal jëkkër na jëkkër jéggal jabar jabar déggal jëkkër ngeen baal ma de soxna yi li may wax dafa am de ndaan mi ci kër gi laa wax dee ko baal dee ko jéggal waaw waaw bàyyi leen leen de waaw waaw mu ko waaye yàlla xam na ko ah nañ ci góor góorlu tey jéggalante nañuy jéggalante wallahi man mbindaan yi nag laa ci gën a insister dama leen yërëm xam nga lu tax dama dëkk ak ñoom léeg damay woo sama soxla ba mu yàgg ma ne ko kii li nga koy liggéeyloo yow ku la tegoon fii doo ko liggéey ma ne ko bu min wi jotatee bàyyi ko mu tëri min wi sax gudd na ma ne ko su 11 heures jotatee bàyyi ko mu tëri mais di ko liggéeyloo ba 2 heures du matin te yow fu 18 heures jotee nga wàcc wala 14 heures sax nga wàcc doo xaar sax heure pile mais nga yaakaar ne rek moom domestique bi ci kër gi yow te yonent bi li mujj a joxe comme recommandation waaleykum bi salaati wa maa malakat aymaanukum loolu la mujj a wax de maa ngi leen di dënk ngeen fonk julli waaye mbindaan yi ci seen loxo di leen liggéeyal ngeen yërëm leen te boo xoolee la nga koy fay ka ca gën a bari la cinquante mille francs te yow la ngay fayee ko ca bureau ba liggéeyu lu toll noonu moom li muy liggéey ci kër gi ëpp na cinquante mille man maa la ko wax maa ko xam la muy la ngay liggéey ca bureau ba billaay mérito wut ak liñ lay fay mbindaan mi nag li muy liggéey ci kër gi billaahi li ngay fay tolluwu ni noonu sax xam nga preuve bi mooy lan bu tabaski jotee wala korite ñëpp naan man de sama sama yaram yi yëpp ay ndax sama mbindaan mi newu fi ñëppay jàmbat jigéen ñëppay jàmbat man de sama yaram wi yëppay métti benn njëriñ amatuma ko ndax mbindaan sama mbindaan yi dafa ñibbi xam nañ li may wax waaw nañ waxante dëgg rek nag ki nga xam ne bu fi newul nga yëg ko waaye bu fi nekkee ormal ko ma ne ki fi newul bu fi newul nga yëg ko su fi nekkee ormal ko ndax li muy liggéey bu fi newul yaa koy liggéey te yow yëg nga ne diis na ci yow doonte sa alal nga koy jox yërëm ko wa aleykum bi salaati wa ma aymaanukum waxuma ko de rasulullahi moo ko wax démb rek si sa jinge joxe na ci exemple bu rafet te taxul loon ñu njukk sax dafa jël kàddu di waxtaan ne ah jànq bi liggéey sama kër de daf ma tàggu ne day ñëw xadratul juma déglu li may wax bu baax de xëy na mu ngi ci mbooloo mi man xaw ma sax ku muy wax bi ma paree bay recevoir daayira bi ma njëkk a ndekete looloo taxoon mu tàggoo dafa ñëw bokk ci daayira la bokk daayira boobu laa doon jàppal jouru conférence moo tax mu tàggoo ñëw xadratul juma si sa jinge bàyyi ko mu ñëw xadara si sa jinge xam nga kañ la génn kër ga une heure du matin ma ne xale bi da ngay dem kër siise wala dangay ngay ñibbi mu ne ñaari fan la ma may yow mu dem ñetti fan la nga ne da koy dàq bu ko dàq jëli ko te te te bu ko dagg ci soldam waaw kañ te bu ko dagg ci solam soldam te yow bu ko defati waaw kañ àddina nii rek la xam nga ma si la lii rek jagal na lépp kañ jeex na waaw waaw jeex na waaw yaa yeey naa yoobeel yëg naa ko sax gàmmu ga yàlla xam na ko waaw waaw kañ yàlla na yàlla na yàlla def sutura nag sëñ naa lii rek lañ ci doon jotal comme ay kàddu ñu ngi jéggalu ñëpp lii rek doy na ma sëkk ci conférence ah te na ko ñëpp roy nag man mi wax sama sang yi rek laa ci bokk boolewul ndax ñoom kenn du leen digal nit du am sa kilifa di ko digal dangay diisoo ak moom waaye sa kilifa doo ko digal kon ñu may ñu tuuti rek ñu jël kàddu gi jox ko suñu sang bu baax bii di sëriñ Cheikhouna Mbacké ni mu ko daan defee mu defee ko noonu te ñun ñëpp ñu am patience ak sago ak tekk ak tekkeeral te déglu ko maa ngi ñaan yàlla yal nañu yàlla may ñu tase fi déwén yàlla bu ko kenn wuute ci dara daraje yonent bi ñu doon waxtaanee yal na yàlla roof ci suñu xol yi mu yaatu lool ñuy muñalante tey jéggalante yal na ko yàlla def yàlla bu mu nekk suñu mujj daje ci kow suuf yal nañ koy fi dajewaat ay ati ati ati at te at bu ñëw yal na dàq bi yal na dàq bii at ba ca toppit yal na dàqat rek monsieur monsieur le député honorable député kontaan nañ ndax néew na kilifa autorité toog ci mbir bam jeex bu la ci kenn génnee na sa kilifa de daf ma koy defal muy monsieur le maire Alioune Sall yow it boo ko defalee soxna Astou foo dem te mën ko def ko du la wàññi dara gis nga mbir yaa nga ca muj ga wal aqibatu lil muttaqin inna al umura ala xawatimiha lu jiitu fal yatanafasil mutanafisun imam ah waaw wallaay dëgg la wallaay dëgg la waaw moo tax nag yow sax laa yóbbante ne ko gàmmu ga ma ko njëkk a wane le kañ la le set la insha allahu moo toog ak Mansour jàmm damay toog teewlu ba jataay bi mat ñaanalante daal di dellu ci yite ñaan yàlla fekkewaat déwén moo tax mu ne ma jotalal ma sama kàddu te tënk ko kon liy njëkk a tàmbalee mooy lu ci dëng na ngeen ñu ko jéggal ndax ay ndaw lañ te sunu xam-xam demewul noonu rawatina ñu nekk ci jataay boo xam ne ay kilifa ñoo fi toog ñuy jiital ci siyaar bi sërif mi bàyyi kàddoom léegi mu mel ni wax na wax ju am solo ni mi ngi bàyyee ci muñ li tax nag sërif loolu ñu mën koo gëm mooy waxtaankat yi ngeen gis ak conférence yi dañuy ànd ak ku mel ni man mu toog ci wet gi bu ñu waxtaanee tuuti ñu jël rajo bi daande ku yaakaar Seydina Mohamed ñëwal fekk fi ki doon waxtaan jox ko addiye wala nangam su ko defee ñu jog jox ko àddiya waaye mel na ni bi mu toogee fii ba léegi di waxtaan gisoo leen ku yëkkati fukki dërëm sax jox ko ndax daaw gis naa biñ ko joxee xaalis dafa ne soxna Astu déedéet lii day yàq waxtaan bi daal koy jël jox ko ñee di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa fi la ma fekk kon moom li muy wax ci moom la nekk waaye yëmu ci loolu ñi fi nekk di tagg yonent bi ku ci siif dalay jox rajo bi nga wax ñu teral la mu door a continuer loolu boo mënul woon a muñ doo ko def ndax sax di nga waaj programme ngir waxtaane benn thème loolu bu baree mën na laa fët wala mu ruube sa xel wala fi nga tolloon nga fàtte ko waaye teewul ku jóg bu yëkkatee da koy jox mu wax ñu teral ko ndax xam na ne loolu munta tee li ko suñ borom bi jox mu jox ko ko dégg nga léegi nee na teleem bi ki financé xaalis bi wala matériel yi xamu ko YouTube bi rek lay seetaane ay waxtaanam ak ay conférence am jëlal alalam def ko ci loolu rek doyoon na waxtaan léegi li Mika ba def ci jëmmi ci toogoon fii bu fi programme bi yemoon jeex loolu day bu ko yàlla dee fay Soxna Astou kenn du xam nu muy toll jullit bu am aajo te Soxna su programme bi ma xamal la leen bëri na ñoo xam ne ñoo la gën a jàpp dat ndax buñ fi jógee bis bu del si moom dinañ ko joxe te xam nga sunu kalaas gi la maam Abdou Aziz waxoon dañoo dal métier yépp bi ci gën mooy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax ñu mujj bàyyi suñuy métier ñii ay téer lañu woon ñii menuisier ñii neneen waaye dañ koo baax féetewoo ak bi te sa bis bii saa buñ fi ñëwee buñ fi jógee dinañ wutaat marakis bu bees wutaat mbuum bu bees wutaat montre bu bees tëdd ay fan yu bari di joxe dépasse loolu nag yàlla na ko yàgg man ndax bis bi sëñ seexu naa mbàkke daaw rek ni nga koy wax li nga ciy ñàkk ci alal macha allah kenn xamul lu mu toll waaye ki tax nga koy def muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jar na ko ndax jëmm jooju sëriñ tubaa ne fala taqiisunna abdallahi bil fudala innal kawaakiba yuxfiha sinnimaaru mel ni dañ koo laaj mu ne kon lil mustafa xayri xalqullahi mën silatan la hëjjihan naxwaa kullal waraaxaaru sayduna muhammad kenn du mel ni moom kon boo tàntalee yonente bi sallallahu alayhi wa fii bi nga xëyee li nga jëkk a def mooy ñu jàng ay kaamil alquran ak suñ ceew naa mbàkki mii ànd nañ teew ci jataay bi ci kaw defal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam addi ak njabootam waaye ñaanal ci mag ñu baax ñi waaye ñaanal ci sa yaakaar Seydi Abubakar Si waaye ñaanal ci jullit yépp kon bis daa am luy tax mu am solo te jëf nga ko yàlla na ko yàgg jëf Serigne naa Mbacké nag nee na kàddoom ak kàddu rakkam bii di Seydina Omar li ñuy wax at yi weesu moom lañuy wax tey yow seen wayjur nga yow seen conseil nga yow ku leen di dimbali nga ci xel mu rafet waaye ak sa doole ak sa kattan yaag sa borom kër bii sàmbaale ba kon sëriñ bi nee na dippi bi mu day jàng bu vacances jotee mu ñëw fii li wax ci suba ci kaw yaag sa borom kër bii seen loxo jógul ci moom ak seen xel mu rafet ak di ko teg ci aw yoon kon sa bis bu fi ñëwee toog ci amu ci kàddu ndax bisam la waaye nee mi ngi sant képp koo xam ne yaa ci gox bi di sant yaa asufaal bu ko tuddee tudd na jigéenu koñ bi yépp mag ñi ak maami njaay mi nga xam ne sëriñ bi du wax mukk fàtte ko waaye di sant Mika ba ndax Mika wax na ko sànq nee diggante digganteem ak sëñ Omar ak sëriñ Seexuna Mbàkke duñ sax ay sëriñam dañoo dem ba dépassé loolu ay xaritam lañu dañuy toog ba xaaji guddi ñu jël seen téléphone woo ko wala mu jël téléphone am woo leen keroog bis bi ñuy déglu ba xam dañ koy fal député maag sëñ seexu naa ñoo ànd jëm ñàgg bi mu jotee nouvelle bi da ko woo am si mbégte lool waaye mii kaa nii nga def rekk la li sirif wax wax nga ko yaag Samba Ale seen diggante lu yàgg la yaag soxna Assu kazalik te ñun ay ndaw lañ waaye xam nañ ci dara ndax géejawaay lañ juddoo fii lañ juddoo fi lañ yaroo kon lii nga def rek mooy yëf yi te dama dégg ku baax wax lu am solo doomu aadama dara feesul biiram lu dul bàmmeel kon nit ñi boo leen doon jox ay milliards bu subaa ñu soxlawaat ko waaye dégg naa léegi nga wax lu am solo ku ma wax lu ma mënul dama naan mënuma ko ku ma wax lu ma man dinaa leen mën naa ko te man mu xeebu mii ñëw naa ba sa bureau fekk fa Ahmadou Amar ak sëñ Abdou Aziz Mbacke ne leen wax ngeen mii kaa sama yóbbante ñu ne ma déedéet ma ne maa koy waxal sama bopp yaakaar naa toog nañ ma wax la ko kon nii rek moo am solo nit yàlla képp leen yor kon sëriñ bi nee na yow it mi ngi lay jox sa wàccuwaay sëriñ Cheikhouna Mbacké nee na mu ngi lay ziar di la jox wàccuwaay wala suñu boroom jox ndax yow jigéen nga joo xam ne toogoo rek ne maam alhaaji Malick mooy sama maam wala sëñ Babacar si mooy sama maam waaye déedéet dangaa jóg sol saw dàll was yéene liggéeyal lislaam te mag ñi damay dégg ñuy wax ne jigéen joo dégg mu suma doon góor su doon góor yi du def dara yow xàmme woo tijaan xàmme woo murit xàmme woo xaadir xàmme woo man mii di wax tuddee naa ko ay jàng sa déwén sa tuddee wuma ko waaye dafa woo Badou Niass ne ko xaadim ne ko sama cant googu la ma ci defoon daaw tey laa ko gën a man dama koy def waaye nag moom maam Seera Fall mooy maamam ni Alaaji Malick doonee maamam noonu la maam Seera Fall doonee maamam yow da nga war ami bàyyi Fall kon sëriñ bi nee na mi ngi lay siyaar ak délégation bi nga àndal di siyaar tàggkat yonent yi toog nga xam ne bu ëllëgee ni ko sëriñ tubaa nettalee bu nu dekkee yomal xiyaam suñ borom day yuqi seeni baat ba mel ni baati njamala ñu xoobee ko wurusu marjaan loolu ku dul yéen mënu koo am ndax yonent bi sallallahu alayhi wa kon sëriñ bi nee na yal na yàlla wéral seen baat te fu ñu daan dégg mbay doon de dafa dégg Abdou Aziz Mbaye ñu dégg leen foo ko faw xote mu ànd ak barke nee mi ngi siyaare Baye Seck mii bu baax a baax di siyaare bëgg fàllu ci ñem àndal la bokk waaye di siyaar bu baax it oustaz ma sillakan moom damay ànd ak sëriñ bi ay jataay yu bari muy wax waaye fi ma toog léeg-léeg sëriñ bi am lu ma déy ci moom dañoo dem bis bu soxna aasi mi doon def fële ca marché Maam Jaara muy waxtaan wax foo ju am solo dan ñiy jaxase tarixa yi ba tax ñuy xuloo muy taalibe yi ñu ci bari liñ nekk sax gëmuñu ko daan sëriñ ak taalibe bëreetut sëriñ ak wëllëre moo bari daan dinaa leen leeral tuuti ci di taxoon sëñ Abdul Aziz mu baax mi fi bàyyi ko yal na yàlla dool leeram wax ne addiyee ger la coow am ci laa leen bëgg leeral ndax moom leeral na ko nee na waaw addiyee ger la xam la tax mu doon ger damay am soxna su ma bëgg dem ay waajuram ne duma ko may ndax ñoom ay ñeeñu lañ wala ay géwél lañ wala nàngam mën a xaaral ma dem seeti sërif bu ma ñëwee siyaar ko jox ko ñaari junni ne ko addiyee samaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sërif jël ne teg damay jekki-jekki daan ko man de soxna su ma doon kii sax xam na dama bëgg nga kii kon joxoo ko àddiya da ko koo ger daa loo bëgg ci moom kon dëgg la yaa ko net li ma fekke ko waaw dégg nga nee na oustaz Cissé jinge nee na addiya soxla waru koo jiitu waru ko mujj waaw loolu moom la suñu mag ñi jàngew la sëñ Fàllu bi mu jaay njuleeram jëndee ko ak taalibe dana ne jëlaat naa lool taalibe gi defalaatul ko sëñ tubaa sama baay addiya sëñ tubaa bi muy miraas boppam ak léppam di ko jox yonante bi maxat mahabatiyal muxtaara sayidina ubil maxaanina wal ahnila wal walada dana dammi wa ahli wa awlaadi fidaahu lahu abdan xadiman muskaani li sanada sama doom sama ñoñ sama alal sama lépp jël naa ko jënde ko bëgg yonente bi sallallahu alayhi ñoo ngi lu baax ndax ñëwal ñëwal sëñ moo moom safaak marwataak samsam te moo ko jogoo ak kabatullaay ak jàkkaam njëlaaw seyduna muhammed seyduna muhammed bam juddoo njanaawe na yàlla noo yor mustafa di ko xol filu ganaati luumal kulli yàllaaw bur yàlla wax na leen bi lisaani ali ñepp weddaam xalimatu sadi moo yor Mustafa laaw watare bi durri sadeyaaw albannoho yonañ ba sex feenu nday joor ramuwa yàllaaw Muhammad xalimatoo yor rasulullah yor bu rafet kem yaari at la ko nampal fer na yàllaaw suwaybatu mas na ko nampal aboola bin gorel ko ngir lam ko nampal wóor na yàllaaw siduna Muhammad siduna Muhammad bur yàlla fay na ko dafiyul xasaabi xadaan jëpp altine ngir ñun makka yàllaaw Seydina Muhammad ci yetti weer la taxaw ànd ak xel yi di dox juróomi weer la dër mër sëkk yàllaaw magak bi saam moo di magal weer ci doomi arab na ñëpp jug taxaw magal Muhammad rasulillahi Seydina Muhammad magal bi sax moo di magal weer ci doomi arab weeram di amaat at ma imlim fa yallaahu wa takallama naasa takliman bi taase min asohori fasi nutqi yallaahu sayyiduna muhammad ku sopp muhammad rasulillahi ku sopp muhammad rasulillahi Seyduna Muhammad fukki weer la ni càndang lompoñul lëfañul di mbelmbeli wax di waaxuy way fa yàllaaw Seyduna Muhammad malaaka ñëw xër dënam tabal ci yaari loxoom raxas ko di gay hikka muy waare yàllaaw Seyduna Muhammad bu yàlla xaatim ko bu yàlla xaatim ko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 allahuma axmisna fi bisaati risqika wa amnun alayna bi fadlika wasbi an imaayika alayna ya rabbi wadrikna bi xafiirul fika warhamna bi rahmatika ya arhama rahimin farrij anna kulla hammin wa qammin ya mufarrij almaqmumina ya qiyaasu aqisna ya kaafi ikfina ya munjina jina mima naqaafu waxsaru wa najina min kulli karbi ya qiyaas almustaqisina aqisna bi jaahi abdika alqudra alayhi salaam ya rabbahu ya rabbahu ya rabbahu ya sayyidahu ya sayyidahu ya sayyidahu يا قاية رقبته يا قاية رقبته يا قاية رقبته يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا مالك يا مالك يا مالك يا لطيف يا لطيف يا لطيف أسألك يا سل الملك والملكوت باسمك اللطيف وبملك علمك كل ما بهذه الصورة الصريفة أن تيسر لنا أمرنا وتسهل علينا في رزقنا إنك على كل شيء قدير وغز من أراد أقصنا قصوى أقصى عزيز المقتدر اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا fastajib lana kama wa'adtana innaka la tuxliful mi'aad allahumma inna da'awnaaka muxtaajan xaa'ifa wa arjuka nasira ya xayu ya qayumu bi rahmatika bi fadlika wa qudratika wa nausu bika ya qaadir ya muqtadir wantaqim minhu bi maasiyati wa taqil fi jasadihi la tasakam xata tusqiya minha ruuxu wa taksiha aysamu ya xaqi faadihati alkitabati sarifa التي سميتها في كتابك العزيز على لسان على لسان نبيك المعز محمد صلى الله عليه وسلم سبعا المثاني والقرآن العظيم وما أودعته فيها صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقدم أمتي وسلم تسليما ñoo gën a kontaan